jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee waaye ñu ngi leen di nuyoo fii ci Diourbel li ñu fi woona mooy drapeau chef de l'État bu ñu nee chef de l'État sa xel day dem ci kenn ki nga xamante ni moom la ñu dénk réew mi muy président de la République du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal tawféex ndax bu amee jàmm mooy Sénégal am nañ jàmm boo amee tawféex mooy Sénégal am nañ tawféex mbokk yi mu nekk vingt deuxième audition drapeau chef de l' état tey raison bu Diourbel organiser ko gañe woon ko fële ca Kaolack ñëw raison bi organiser ko ñàkk final bi dox ci diggante Dakar ak Fatick ñaari capitaine yi ku ci nekk xam na leen kii di Doudou Sané moo indi Fatick nekk seen capitaine Serigne Ndiaye deux bu Faas indi Dakar nekk seen capitaine ñu fas yéene laale final beneen final bi dox ci diggante Serigne Ndiaye deux ak Doudou encore muy final individuel bi beneen final bi nga xamante ni mooy final open bi dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 ak Ngagne Sène mu nekkoon beneen final boo xamante ni final open la kon Serigne Ndiaye 2 mën nañ ne moo finalu trois fois moo finalu équipe moo finalu individuel moo finalu open loolu yëpp nag mbokk yi dañuy dugg ci biir wan leen lépp loo xamante ni ambiance la ci làmb ji accueil yu mbëri accueil champion mbër ma boobu rek waaw ndax drapeau chef de l'État mooy loolu boo ko di ko jël rek mooy loolu waaw am fu la moo la ko may quoi sam ñu ngi final individuel individuel waaw nga équipe bi équipe bi ñàkk nañ ko ñàkk ngeen ko waaw tey final individuel bi dafa am loo xamante ni gars yu bari ñu ngi koy séntu ci yow ki nga bëre loon ci ki nga war am final individuel xam nga ko de waaw xam naa ko waaw. ah. foo ah? ko xamee. fan laa ko xamee moo ma daanoon par kii par kii bi. léegi loolu du du joué dara ci sa xel. non stress. <laughs> waaw. Eh. kon waaw. loolu moom du daaj. ah di dañuy bëre. Ah. la daloon njuumte la wala moom moo la mën. non moom xam ga sport la ko mais nañu xool rek incha allah. Hmm. waaw nañu xool rek affaire bi. Euh, gars yi ku mun xam nañ ko. yaa ngi may dégg. bu dee Sénégal 76 kilos ah bu dee Sénégal koo ciy tànn man la loolu yàlla moo ma ko may yaa ngi may dégg gars yi su ñuy wax dañuy wax rek ngeen bàyyi seen wax après ngay liggéey say liggéey quoi mais li nekk dëgg ak li nekk kii ah euh, gis nañ ko quoi comprendre nga ñaata yoon la daanu barke dembu trois fois beneen bi mu def recours comprendre nga ngay doorat ñoom seen la di daanu ay trois fois ñoo xam ne gars yi sax sóoraale wuñ la man gars yi ñëpp ñoo may préparé yaa ngi may dégg kon xam nga ne su ma ñëwee di prouver chaque année chaque année presque ba cinq fois ni mais nag ci favori yi nga bokk c'est normal gars yi préparé la. mais déggoo jël naa ko cinq fois beneen bi rek laa ñàkk final oh, bii moo koy def cinq incha allah ah. waaw. ah kon ñu xaar góor siyaar naa la de. aja mbir. waa gis nga. maa sant yàlla bu waa gis nga loolu loolu la yàlla waaw épique bi moom loolu moom ma métti ba tey quoi parce que non force dañ ko war a force dañ ko waroon jël force. force waaw. dañ ko waroon jël. billaay wallaay. nga loolu la yàlla dogal quoi nañ ko nangu. léegi final nga am Serigne Ndiaye 2. seen diggante yi ñaar mos ngeen a bëri. nañu bëre quart de finale waaw oto bu mu jëloon. moom mu génne woon quoi. waaw. tey noo fas yéene ñëpp rek ni may def tout le temps rek lu yàlla def nag ma xam loolu la quoi waaye moom dinaa def lu mu man yëpp. du yomb man du ma may tus. xale màgg na. màggagul sax. Ah. billaay walaay. ñu may bëreel yëpp ñu ngi tase si terrain bi yëpp. parce que alxuraan karim may seen rak. waaw nan xaar jarul wax quoi. jarul yàq billaay walaay. gis la. konteel la konteel la konteel la nga yëngal sa mu mel daa am lu la métti. non lu muy compter noonu yëpp loolu yi bu may def poussière muy def raw gadu di def poids lourd boobu la ma daan loolu. waaw ndax garaawul yàlla baax daal. non non loolu koy yàggatul sax. billaay walaay. ok mbër. eh bëgg naa la de grand. lépp jàmm kay. sant bu baax a final individuel ah. individuel cent cent kilos maa ngi Ilso bu baax waaw. waaw bi noonu def. équipe bi dañ koo ñaakoon barke démb. waaw mais yàlla def na ñun ñooy final individuel yi quoi. waaw individuel bi da war a joxe lépp pour équipe bi nga mën a sauver l'honneur bi am dara fi ñu xamee rajaxe rajaxe tollu foofu. waaw noonu la demee moo tax maa ngi ci kawam te incha allah si kàttan na yàlla lu ci des dinañ ko motali quoi. Hmm. waaw waaw. kon lu lay métti ci final ci équipe bi din nga ko di ko. lépp dinaa fii bu soobee yàlla. Hmm, incha allah lépp jàmm kay Adama Kaay. équipe bu Dakar baa ngi noonu. Tony Tony ngi noonu ndeysaan nee na Tony ñëw na <laughs> Adama Tony nee na Tony ñëw du lu ñuy wax lu ñuy jëfe <laughs> moom miin ngeen concentration bi ci moom miin ngeen bëgg bis bi Doudou nuy naa la de. fay naa la baa yaa ngi kay. lu mu laaj. waaw lépp laaj na lépp. Ah. waaw lu war ci lamb rek laal na ko waaw. Fatick yëpp dañoo nekk sa ginnaaw yaakaar la tey nan nga mën a génnee Fatick ci liñ waaw Sëñ Fallou ay mbër lañu. Ah. dañuy liggéey ay ndaw lañu. Ah. waaw def lu ñu war rek ñibbi quoi. bilaahi am na am Serigne Ndiaye 2 la. day neex rek. Oh. bilaahi. démb da ngeen a bëree mu génnee la par point nga génn ci digg géew bi jooy mu mel ni daa am lu la métti loolu da koy faj tay non damaa xam ne ku bëreewul daan génne ma par point de daa métti quoi taxaw rek nit ki di def action ba jege ba jege tere bi suuraale ko sax nga puus ko. mais ci sport la bokk quoi mais anyway tey laay dàq quoi. ko rectifier tey bu bëggee ñu samp si dëkk bi rek dee quoi billaahi. daa mel ni gars yi ñu ngi ñëw di la soutenir la dompat sax ci ci sot la waaw Ndakaaru la équipe équipe moom ñëpp la hmm. waaw. bu Sénégal di football Sénégal ñëpp la. Hmm. bu Ndakaaru di bëre. ah euh, Dakar waa Dakar yëpp ay bokk. reporter yi nekk Dakar sax dañoo war a faral Dakar tey. ah bu ñu moo ñu faral Dakar seen affaire lay doon. waaw ah. ah, di kon ñu ñàkk fayda. Ah, <laughs> wallaay mais tey équipe bu bi préparation bi ak tey bi ñu ñëwee fii dafa mel ni surprise bu rëy am na ci côté Tony loolu ci moralam ak mentalam nan ngeen koy fas yéene liggéey ba tey Tony mi ñu soxla woon ñu gis. liggéey nañ ko ba pare kañ béy naa ne ni nañ ko. ñu <laughs> nii nañ ko liggéey nañ ko ba pare indi nañ ko. waaw léegi kañ xanaa gis bokk si bu ñëwee nga fa da ngeen gis. Ah. waaw mais bi mu njëkkee daanu daanuwaat daanuwaat bi ngeen demee lan ngeen lan ngeen waxtaan. waaw li ñu waxtaan li ñu wax dégg la bu liggéey nañ ba pare indi nañ ko léegi bu ñu liggéey rek rek tari moo si des. waaw. capitaine bi Serigne Ndiaye 2 mu war a laaleeg Doudou Sané dinañ fas yéene laale tey ñaari yoon muy par équipe. ak individuel moom it nan ngeen ko waajee ak lan ban conseil. mu defoon ndémm ba daan ka rek noonu lay defaat daan ka. par point la koy génn. waaw na nga gagné. ndam rek moo lay yitte. ma koy suuf sax baax na. mais na ngeen gagné rek. ah démb gis naa Ablaye Ndiaye bëreeg Serigne mais bi mu bi ko Serigne Ndiaye daanee daa ñëwaat ci yow kott mu mel ni doom bëri na waaye ba mu daane sport moo leen boole. mu ñëwaat ci yow yan conseil nga koy gën a jox ci drapeau chef de l'État surtout ci làmb ji mu nekk Ablaye Ndiaye bokk ci ñu bari ci làmb yaakaar ko rawatina Joal bi. waaw nekk làmb la rek. waaw mooy comme nit rek day feebar di waaw du toll lu diggante boobu man toll naa woon diggante boobu te ku si nekk da nga toll diggante trop trop. waaw da léegi nag yàlla yem fii rek mais liñ ko wax ne làmb si la bokk. waaw ñu continué waat waajalaat rek naam du ñëw duggaat samp waat incha allah. Cheikh Sadibou Sarr ndaysaan ak Adama Thiour ndaysaan Kaolack Cheikh Sadibou Sarr Fatick ndaysaan Cheikh Sadibou Sarr ñu ngi ci individuel yi mbokk yi moo def ceinture rouge Adama Thiour moo def ceinture bleu def ngemb bu rouge Cheikh Sadibou def ngemb bu bleu ñoom ñaar ñu ngi Cheikh Sadibou Sarr ndaanaan la nag ci làmb ji compétition yi bi mu commencé ba léegi mu ngi boppam waaye mbokk final individuel bi ci catégorie daw na jël ko daw na jël ko dara daw na jël Adama Coor bañ ndaysaan wuro dañ daa mu plaqué ko bu bañ du yomb ñaari xale ay jàmbaar lañu ndaysaan ay bërekat lañ ñu ngi lewaatoo ndaysaan ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo daw nañ jàppante ndaysaan Cheikh Sadibou Cheikh Sadibou Adama Thior Adama Thior Cheikh Sadibou Sarr ndaysaan Adama Thior Cheikh Sadibou Sarr Cheikh Sadibou Sarr daw na na ko na ko daan na ko Adama Thior daan na Cheikh Sadibou Sarr Adama daan ngay xale bu mën a bëre waay oh Adama 66 kilo bi daan na ndeysaan Adama daan na ko Adama Thior individuel 66 kilo bi moo ko jël ma ndaysaan individuel bi ci catégorie 76 kilos dox ci diggante Ismaïla Diop Fatick ak Ngor Ñaax Kaolack Ismaïla Diop ceinture rouge Ngor Ñaax ceinture bleue mbokk yi arbitre bee ngi waaj a sifflé na Ismaïla Diop combat ouverture bi moo bëroon ak Ngor Ñaax daan ko mu dajewaat par final individuel ci catégorie 76 kilos revanche ga Ismaïla Diop day daanaat ngóor ñaax wala ngóor ñaax day fayu na leen xool fu ñuy mujj ñoom ñaar Ismaïla da koo sàccoon ñeme na ko ngóor ñaax ndaanaan la Ismaïla Diop daa bëgg a wane boppam fàqan na ko ngóor ñaax fàqan na Ismaïla Diop dox na ci kawam Ismaïla Diop taxawaay bi baax na mu ngi bëre arbitre bi nee na leen bëre bëre leen bëre may teel bëre leen amul dóor bëre leen amul jàpp ngemb bëre leen jàpp tànk am na jàpp loxo am na xëcc Ngor Ñaax naanaa la daaw na jëli ko Ismaïla Diop na ko Ngor Ñaax bañ na champion CEDEAO Ngor Ñaax tey ñëw na drapeau chef de l'état perte équipe individuel bi lay bëre nii final bi ci catégorie 76 kilos fan la ñuy dina yomb wala déet xale yaa ngi noonu góor ñaax Ismaïla Diop ndaysaan arbitre baa ngay joow drapeau bi rek arbitre baa ngi koy ci teewaay arbitre bi atte na atte na avertissement Ngor Niakh avertissement Ismaïla Diop bëre woo yi ñu ngi fii Ngor Niakh toj dem na ardo bu doon bëre la adversaire bi day kontaan mbokk yi yëpp yuuxu waaw waaw Ngor Ñaax. arbitre bi sifle waat na. Ismaïla Diop Ngor Ñaax. Ismaïla moo la woon ginnaaw. Ngor Ñaax moo ngeen boo ngeen lu ñuul li. moom ngeen jàkkaarloo dox ci diggante Fatick ak Kaolack Ismaïla Diop Fatick ngoor Ñaax Kaolack Ismaïla daw na lan moo a xew diggante Ismaïla Diop ak Ngor Ñaax lan moo nar a xew jàpp na ko Ngor sol na Ngor Ñaax sol na génn na saaku yi Ngor Ñaax génnee na ko Ismaïla Diop boo moytuwul làmb ji jeexee noonu Ismaïla Diop Ngor Ñaax Ismaïla am na ñaari avertissement Ngor Ñaax sol na ko koy mën boo génnee ñàkk sa ñaax Ismaïla Diop Ngor ñaax Ismaïla Diop Ngor ñaax a koy kal da koy génnee ñàkk na ñàkk na ñàkk na Ngor ñaax daan na ko daan na ko arbitre bi sifflé na ndaysaan Ngor ñaax Ngor ñaax avertissement ndeysaan noonu la lu xew lu xew lu noonu la demee trois avertissement la trois avertissement la am c'est normal mbër mi mu ngi bañ Serigne Ndiaye dugg ci géew bi ma ngay mel ni kuy bëri arène waaw waaw moom capitaine Dakar xoolal ka muy àndal ma ngay dongale rek No, no. Ibrahima Sarr individuel ak mbokk yi yéen a ngi gis noonu arbitre bi gi ngi xool ñaari mbëri dox ci diggante Ibrahima Sarr Tamba ak lamin Diop Kaolack Lamine Diop moo ceinture bleu moo la wan ginnaaw Ibrahima Sarr Tamba moom ngeen jàkkaar lool ñu ngi ci catégorie cent kilo yi ndeysaan ñoom ñaare gi noonu Lamine Diop gaa yi gën koo xam ci rajo xee ku ne xam na ko ci làmb vraiment ñoom ñaar Ibrahima Sarr moom it kenn waxaale ko arbitre bi siflé na mbokk yi cent ñu ngi fii ci individuel bi première place deuxième place ci lañu ñu toll baa ngi noonu dox ci diggante Ibrahima Diop Tamba ak Lamine Diop Kaolack Ibrahima Lamine daw na jël ko Lamine jël na ko daan na ko Radiakhé Lamine Diop daan na Ibrahima Sarr dafa am doole moom Radiakhé perte na équipe bi waaye jël na individuel bi ndeysaan loolooy làmb ndeysaan loolooy làmb ñuy ñëw ñuy waaj ñëw ci dañ dëpp gi dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 bu Faas ak Doudou ndaysaan muy Kaolack muy Fatick ak Dakar mbokk yi ñu ngi noonu ci individuel bi la ñu mbokk yi ñu ngi noonu ci catégorie plus de cent kilos yi bi dox ci diggante Mamadou Lamine Sané Fatick Moussa Diop Dakar Mamadou Lamine Sané mbokk yi mooy Doudou Sané Moussa Diop booy Serigne Ndiaye dee bu faas mbokk yi noonu démb laale woon nañ par open Serigne Ndiaye dee éliminé ko demi-finale tay fan mujj Serigne Ndiaye day delloo buum ca mboy ga wala Doudou Sané day dagg buumu jaam gi nu ñuy def Serigne Ndiaye ngay wër ma ngay wër géew bi Serigne dee ngay wër géew ma ngay wër géew bi ma ngay wër géew bi ndaysaan ma ngay wër géew dañu koy piil ndax dañoo bokk fi ñuy taxaw bokk nañ taxawaay ñoom ñaar du yomb ndax làmb la. ndaysaan làmb la. Ah, lii waroon ngeen koo xam. arbitre yi ree nañ. dañu koy pile. waaw ah, nañu ko pile. dañu koy pile. ñoom ñaar a noonu. Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2 ak gis nga leen ci nekk mu ngi ci digg géew bi di waajal dox ci diggante Serigne Ndiaye ak Doudou Sané ndeysaan Serigne wër géew bi Doudou Sané moom fa mu taxaw jugewu fa du yomb waaw individuel la par drapeau chef de l'État fii ku daan da nga yóbbu sa waaw waaw ku daan da nga yóbbu sa kër ndaysaan ñetti arbitre yi beneen troisième arbitre bi ñëw na fañ nañu mujj ndeysaan fan la ñuy mujj ñoom ñaara ngi noonu arbitre beeg leen di présenté présentation pour les lutteurs Aïcha Pape Diop dañuy décorer sa mag day ñëw les CNG ñoo koy décorer Baara Baara Ndiabour day sànq waaw. waaye xaaral ba ñu décorer. mooy Mamadou Lamine Sané Sané Fatick. Moussa Diop Dakar. waaw kooku mooy Serigne Ndiaye 2. arbitre Mathia Mané. mooy arbitre central ba. Tidiane Ndiaye. 26 laas Demba Diop.

Doudou Sané arbitre bi sifflé na mbokk yi vingt-deuxième édition drapeau chef de l'État fii ci Diourbel Serigne Ndiaye 2 moo la woon ginnaaw Doudou Sané daw na jëli ko sàcc na ko sàcc na ko da ko bëgg a plaqué Serigne dinañ bëree ñoom ñaar dinañ bëree Doudou Sané Serigne Ndiaye dañoo tolloo doole du yomb ñoom ñaar te xat na ko padd na ko padd ba ñëw na ndeysaan Doudou Sané da koy padd dina ko paddaat Doudou Sané Serigne Ndiaye ña ngay xoolante ci bët dañoo jegeente ndeysaan na jëli di yomb Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 Dakar ñaari ngi noonu Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané daw na jëli na ko Serigne Ndiaye daw na jël da ngay da ngay felante ñaari borom doole lañ Serigne Ndiaye plaqué na ko Doudou Sané bañ Doudou Sané sol na Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye tol na laay laay la la eh bëre doole Général Malika taw na romb ci ñaar yi ñuy bëree ndeysaan stade ba toj na ndeysaan Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané Dakar ak fatik waaw lii nag individuel la individuel bi ku daan da yóbbu kii day yóbbu dakaar kii yóbbu Fatick Serigne Ndiaye Doudou Sané ña ngay ngàddante jàpp koy manœuvrer daa bëgg mu bëree du yombu laa ilaaha illallaah Serigne Ndiaye Doudou Sané Serigne Ndiaye fàqan bañ na ndeysaan ñoom ñaar a ngi bëre arbitre bi nee na Doudou Sané bëreel nee na ko bëreel ñaari borom doole la du mën a yomb eh, du yomb du yomb ñoom ñaar Njaay de ndaysaan mbokk yi ci teewaayu Matar Ba ministre des sports ndaysaan ci teewaayu président Bira Sène président du CNG de lutte ci teewaayu Mame Boye Diao mbokk yi combat ngi noonu dox ci diggante Doudou Sané ak Serigne Ndiaye 2 ci teewaayu lancé roi des arènes Manga 2 ci teewaayu Moustapha Gueye lancé Tigre de Fass mbokk yi ñu ngi noonu Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 eh arbitre bi àtte na avertissement Doudou Sané avertissement Serigne Ndiaye tàqalikoo nañ tàqalikoo nañ ñoom ñaar nay eh Serigne Ndiaye dem na ci cimikaay ba Serigne Ndiaye dem na ci cimikaay bi ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk naan na ndeysaan am na ku yëngal stade ba jóg nañ mbokk yi dellu nañ ñaari mbër ku ci nekk noppalu na ba pare dellu nañ fii laa ilaaha illallaah arbitre bi sifflé woon na Serigne Ndiaye de Fass Doudou Sané Fatick Doudou jeexal Serigne Ndiaye ñoom ñaar dañuy bëre daw na jëli ko caaxaan na ko Serigne Ndiaye daan na ko nee na daal sa ci nga ñëwaat ma laa ilaaha illallaah Serigne Ndiaye doo daan na Doudou Sané deux fois Koreas Serigne Ndiaye jël na final bu njëkk bi ñu ngi waat fii ci final open bi ndaysaan fii ci stade Ilimanel Fall bu Diourbel ngañ seen daw na jëli Serigne Ndiaye Serigne ko ngañ bañ na Serigne Ndiaye koy bëgg fol jaay doole wóorul Serigne Ndiaye ngañ seen surprise du am wala déet Serigne Ndiaye sëq sànni lay def ngañ seen doy bëre ñoom ñaar nee na dafa ritax nee na dafa ritax Serigne Ndiaye arbitre bi nee na xool nañ ngañ seen ba noppi da ngay da nga koo bëgg a jàpp ngay seen bañ nga ne daal di tax na tànk ba da koy daan wala déet da koy daan ngeen bañ na waaye ngeen bañ na waay xale bëre waay ngeen seen Serigne Ndiaye ngeen seen Serigne Ndiaye est-ce que li di wax ne dafa di tax du dëgg wala déet mbokk yi yéen ñii seetaan na ci xam dara waaye ngeen seen daanaan la ci làmb xale la te mu ngi màgg. ku ko ci daanu ren doo ko daan déwén Serigne Ndiaye ngañ seen doo jëli ko Serigne daa bëgg a forcer waaye Serigne benn bët bi gis beneen bët bi daa xaw a piita <laughs> waaye lamba gi ndaysaan sama papa As Birahim maa ngi lay bégee sama professeur sama conseil xoolal Gris Bordeaux ma nga la yegg mënatul taxaw mënutul toog poulain mooy bëre Serigne Ndiaye ndeysaan Gris Bordeaux ma nga noonu jàkkaarloo ma Alaaji ah, ah, Amadou Kati Diop suñu papa ma nga toog toog mënatul taxaw mooy entre Serigne Ndiaye mooy ku mel ni Moustapha Gueye lancé Tigre de Fass moom ma firi <laughs> xaw ma firi bi la fàqan na am na lu xew wala déet ngañ seet bañ na Serigne mbot na ko tey lii la la laa ilaaha na ko ngañ seet bañ na waaye félicitation ngañ eh! macha allah ngañ seen Serigne Ndiaye da ko doon mbot jug na naan ko ndànk waaye kii gisuloo giri may ko rek ndeysaan ngañ seen Serigne ndeysaan ngeen ngay way ngeen ngay way waaye lii laa bëgg ci xale nekk xale teew ta am jom nekk xale teew ta bëgg sport nekk xale teew ta xam li ngay def arbitre bi atte na atte na am na lu mu waxal Serigne Ndiaye ngañ seen Serigne Ndiaye 2 ngañ seen Serigne Ndiaye 2 arbitre bi nee na bëre leen bëre leen bëre leen taaba jeex na ndeysaan seen Serigne Ndiaye seen daanaan la waaw waaw waaw ci nekk dem na ci kot shed ndeysaan Père Moustapha Gueye ma ngay wax ak Serigne Ndiaye deux Amadou ma ngay wax ak Serigne Ndiaye ngay seen dem na ci entraîneur ba naan ndox tollu si waat mais ngañ seen waaw waaw ngañ champion la de compétition moo garaaw rek ah ta ngañ sax da dul nangu Serigne Ndiaye doo yóbbu trois trophées yëpp ah ngañ day bañ de arbitre bi siflé waat na mbokk vingt-deuxième édition drapeau chef de l'État Diourbel du 6 au 8 mars 2021 mbokk yi ah dëkk bi neex na lamb ji wuy na Ngañ daw na jëli Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye daa ubbi bi pour Ngañ seen ñëw Ngañ Sène Serigne Ndiaye de du yomb Ngañ Sène Serigne Ngañ Sène Serigne daw na jëli tànk bi Ngañ door na ndaysaan wala bokk ci bëre bi la bokk ngàdd la ndaysaan ngàdd la arbitre bi nee na bëre Ngañ Sène daw na jëli ko Serigne Ndiaye Ngañ Sène ndaysaan ngañ seen Serigne Ndiaye de <laughs> waaye ngañ waay waay Serigne Ndiaye waay ah munu yomb ngañ seen Serigne Ndiaye de ngañ seen Serigne Ndiaye de final dañ koy jël waaw waaw avertissement avertissement ngañ seen am na ñaar Serigne Ndiaye am benn jaadu na jaadu na jaadu na su bi jeexee Serigne Ndiaye jox ndam su temps bi jeexee Serigne lañuy doo la ñuy jox ndam ngañ seen Serigne Ndiaye de ñu ngi fii ci stade Ilimanène Fall bu Diourbel ndeysaan noonu Moustapha Gueye 2 ci làmb takk sëru rabal bàkku ànd ak loolu cosaan la gis nañ ci ku mel ni aw jaal làmb gi taaba day jeex taaba ngay jeex Serigne Ndiaye 2 ndeysaan ak seen ñoom ñaar nu muy demee Dakar ak Kaolack ndaysaan Serigne Ndiaye daa bëgg a jël ngañ ngañ bañ ah ngañ bañal waaw bañal ngañ atu réer na atu feeñ na atu daan na daan nañ atu ngañ seen Serigne ñu bari jàpp nañ ni Serigne Ndiaye doole waaye ngañ daa bañ xale la nekk xale am jom bëre fulaa koy def ak fayda ak jom ndaysaan bu ñu jugee fii ci finalu open bi dañuy dem ci place ak quatrième place temps ba jeex na Serigne daan na am na ndam ndaysaan am na ndam Serigne Ndiaye jël na deuxième finale bi ndeysaan Serigne Ndiaye am na ndam mu des équipe mu des finale équipe mu des finale équipe Serigne jël na open bi Serigne jël na individuel bi nañu xool équipe bi fu muy mujj waaw waaw cey yàlla Louga ak Diourbel ndeysaan ndeysaan comme yaa ko jël mu bàkk interrogé ko mu wax ma xam lu mu lay làkk ndeysaan ñu ngi noonu ci combat bi dox ci diggante Diourbel ndeysaan ak ak Louga ñu ngi ci combat bi. Ndeysaan combat yaa ngi noonu. Ndeysaan troisième place quatrième place baa ngi noonu. mbokk yi xale yi actuellement ñu ngi wane seen bopp ci wàllu lamb 66 kilos la. ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan dox ci diggante Babacar Sène ak Mame Mbathie Mame Mbathie Gueye ñoom ñaar ñu ngi noonu ci compétition bi ñu ngay laale. Ndaysaan Babacar Sène jàpp na mu bañ génn nañu ñu nga ca jàppante nañu jàppante fàqan na ko dara xewul dara xewul xale yaa ngi noonu jàppante nañu faqat na <laughs> waaw waaw yi ñu ngi noonu jàppante nañu ndaysaan jël na ko faqat na ko ndaysaan ñoom ñaatu yomb jël na jàppante nañ dox ci diggante Louga ak Diourbel temps ba jeex na noppalu leen arbitre bi départ Louga mbokk yi arbitre bee ngi noonu di waaj a sifflé waat dox ci diggante troisième place ndeysaan moom lañu ñuy xëccoo Mame Mbaj Gueye ak Babacar Sène Babacar moom nga jàkkaar lool Mame Mbadji moo la woon ginnaaw Babacar Sène ak Mame Mbadji Gueye daw nañ jàppante jàppante nañu muy xew Babacar Sène mu ngi koy fàqat Mame Mbadji bañ na Louga Diourbel Babacar Sène Diourbel Mame Mbadji Louga moo ngi koy xëcc bañ na Mame Mbadji jàpp na daan na ko Mame Mbadji daan na Babacar Mame Mbadj daan na ko Mame Mbadj daan na ko Mame Mbadj daan na Babacar Ndeysaan daan Sambeen Ndeysaan 76 kilos ak Mor Ndiaye ah. Ndeysaan Mor Ndiaye Louga seeni Sambeen Diourbel arbitre bi sifflé na jàppante Séeri nag ndaanaan la champion la waaye Mor Ndiaye ndaanaan la moom aussi compétition bi ku ci nekk yaa ngi wane sa bopp ndeysaan daw na fàqat na ko dara xewul daan na kay seeni bu Jurbel daan na seeni daan na ko dem o oh, o oh. oo oh, oh, dox ci diggante Seny bu Diourbel ak Mor Ndiaye ndeysaan waaw Seen ak Sango Ña jàpp na ko Issa jàpp na Issa sol na ko dëpp na ko naax jaxabal na ko daan nañ ko wala déet mbot yegg nañ suuf laa ilaaha illallaah Issa Sambène bañ na bañ na daan na ko laa ilaaha illallaah Issa Sambène daan na Sangoulé Issa Sambène daan na ko ndeysaan daan na Sangule ñaa moom Issa Sambène Issa Sambène daan na ñu ñëw ci 100 kilos yi ñu place bi dañoo xool ba day sauver l'honneur ci digganteem ak Diourbel moo dox ci diggante Mohamed Bousso Boy Faye cent plus de cent kilos ci Baye Paul numéro deux Boy Faye ngeen jàkkaar lool Baye Paul numéro deux moo leen won ginnaaw ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngi noonu Boy Faye Souleymane Boy Faye Souleymane Camara Boy Faye Souleymane Camara ndeysaan ñu ngi noonu Souleymane Camara Boy Faye ñoom ñaar lu nar a xaw ndeysaan Souleymane Camara Boy Faye arbitre bi atte na ñaari mbëri ña ngay lewaatoo Souleymane Camara Boy Faye Souleymane Camara ak Boy Faye Souleymane Camara Boy Faye <laughs> ku nekk ku nekk ak sa problème ndeysaan daw na jël sol na daan na ko Boy da koy daan Boy Faye Souleymane Camara Boy Faye wër na ko Boy Faye wër na ko ndombo fay Faye wër na ko ndombo wër na ko ndombo Boy Faye wër na ko ndombo fay Faye wër na ko ndombo est-ce que da ci kaw dóor ci suuf wala da koy bëj wala da koy biij wala da na daan na ko Boy Faye daan na ndeysaan Souleymane Adama Souleymane bañati na Adama Souleymane ndeysaan nangul Boy Faye ma ngay jooy jël na troisième place ma ngay jooy Boy Faye ma ngay jooy

Babou Kaling moo woon ginnaaw Cheikh Sadibou Sarr moom nga lool Dakar ak Fatick arbitre bi sifflé na mbokk yi ndeysaan finale drapeau chef de l'État bi ngi noonu dox ci diggante Cheikh Sadibou Sarr ak Babou Kaling Babou Kaling moom moo woon moom nga jàkkaar lool Cheikh Sadibou Sarr Babou Kaling Cheikh Sadibou Sarr Babou Kaling Cheikh Wade Babou Kaling daan na wala déet wala boog wala boog wala na saako yi Cheikh Sadibou Sarr génn na saako yi arbitre bi sifla waat na Babou Kaling Cheikh Sadibou Sarr ci wàllu 66 kilo bi ña nga ca ak Fatick Ndeysaan ci teewaayu ministre des sports Moussa Matar na jëli ko lu xew lu xew daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko Cheikh daan na Cheikh Sadibou Sarr daan na wala ndeysaan wala déet génn na saaku yi ndeysaan waaw jaadu na arbitre bi sifflé daw na jëli ko daw na jëli ko daw na sàcc ko daw na sàcc ko daw na sàcc ko war ko ndombo war ko ndombo Babou Kaling war ndombo daan na ko Babou Kaling daan na Cheikh Sadibou Sarr Babou Kaling daan na Cheikh Sadibou Sarr Babou Kaling daan na Cheikh Sadibou Sarr recours Fatick nee dañuy bindu recours Fatick nee na dañuy bindu recours arbitre bi nga waaj a sifflé mbokk ci drapeau chef de par équipe dox ci diggante Ismaïla Diop ndaysaan ak Mbaye Diop ndaysaan dox ci diggante Dakar ak Fatick Ismaïla Diop Mbaye Diop ñoom ñaare ñu noonu ñaari Diopi ndeysaan Ismaïla Diop Mbaye Diop mbokk yi ñu ngi noonu Dakar ba tey ak Fatick Dakar am na benn ndam ci kaw Fatick da koy jëli wala déet na leen dem xool ku wànnante di mujjee ki gëtam Ismaïla Diop Mbaye Diop ndeysaan Ismaïla Diop Mbaye Diop mbokk ñu ngi ci 76 kilos Ismaïla Diop Mbaye Diop Dakar ak Fatick ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi ba tey Dakar Fatick fàqat na ko fàqat na ko Ismaïla Diop Mbaye Diop daw na jëli ko daw na bañ na sol na ko Ismaïla Diop Mbaye Diop daw na sol na ko sol na ko lum nara def sol na ko Mbaye Diop Ismaïla Diop ñu naan ko bëreel Mbaye Diop Ismaïla Diop ñaari njóobeen yee ngi ci combat bi ba tey ndaysaan génn nañ ku génn avertissement pour Ismaïla Diop Fatick ci kaw Mbaye Diop Dakar ñoom ñaar nañuy def Ismaïla Diop daaw na jëli Mbaye Diop ndeysaan Dakar ak Fatick ñu ngi ci compétition bi par équipe finale drapeau chef de l'État fii ci Diourbel stade Ely bu Diourbel tol na ko Mbaye door na ko mu bañ ndaysaan bañ na ndaysaan Mbaye Diop ak Ismaïla Diop ñoom ñaar a ngi nii Mbaye Diop sol na ko arbitre bi atte na temps jeex na ndaysaan arbitre bi départagé na ñaari xale yi ndaysaan bi wowoon na ñaari mbër yi ndeysaan ñu ngi noonu dox ci diggante Mbaye Diop ak Ismaïla Diop ndeysaan final drapeau chef de l'État par équipe ndeysaan Mbaye Diop wër na Ismaïla taxaw fi Ismaïla taxawoon Mbaye Diop Ismaïla Mbaye Diop Ismaïla Mbaye Diop Ismaïla ndeysaan na nga noonu final drapeau chef la chef daw na jëli ko Ismaïla daw na jëli Mbaye Diop Mbaye Diop bañ na Ismaïla sol na ko sol na Mbaye Diop da koo bëgg a bañ na fàqat na xale yaa ngay bëre bëgg mu jeex Mbaye Diop ak Ismaïla Mbaye Diop daw na jëli tànk bi jël na tànk ba Ismaïla jël na tànk Mbaye Diop Ismaïla jël na tànk ba Ismaïla jël na tànk ba Ismaïla jël na tànk ba Mbaye Diop bañ na wuree nañ ci bëre laa ilaaha illallah xale yaa ngay bëre Mbaye Diop Ismaïla Mbaye Diop Ismaïla ñaari xale yu bëre nañ final drapeau chef de l'État mënul yomb Serigne Ndiaye dégg nga ne yegg Doudou Sané ngay wax ku ci nekk ngay wax ak mbër mi nga indi Mbaye Diop capitaine bi Doudou Sané la Ismaïla capitaine bi Mbaye Diop capitaine bi Serigne Ndiaye 2 la Ismaïla capitaine bi Doudou Sané la ñoom ñaar a ngi noonu ndaysaan nee na ko teeyal Serigne Ndiaye naan ko teeyal bëreel Doudou Sané naan ko jëli ko combat bi dina metti hee final drapeau chef de l'État mënul yomb lan mooy départager ñaari xale yi lu leen di départager Mbaye Diop lan moo leen di départager Mbaye Ismaïla lan moo leen di départager bi jeex na wala déet lan moo ci des bu temps bi jeexee Mbaye Diop mooy gagné Ismaïla ndaysaan Ismaïla fàqan na daa bëgg a bëre Mbaye Diop plaqué ko mu bañ Mbaye Diop Ismaïla Mbaye Diop Ismaïla ñu ngi bëre combat bi yombul ñaari xale yi dañoo joxe ku ci nekk bëre na ña ngay wax de ndaysaan per kate ngay wax moo indi Mbaye Diop Dakar Ismaïla entraîneur baa ngay wax ñoom ñaar mënul yomb ña ngay wax ndaysaan ña ngay wax équipe baa nga rek yombul fàqat na ko yegg nañ suuf génnee na bañ na Mbaye Diop Ismaïla <laughs> waaye ñaari temps jeex na temps ba jeex na Mbaye Diop gañe na Ismaïla Mbaye Diop gañe na Ismaïla Moussa Faye Gueye na ci géew bi daa tiit sama papa Al Moustapha Gueye dugg na ci géew bi Dakar 2-0 2-0 pour Dakar 2-0 pour Dakar. pour ñu jàppale ci bis bi merci le sëñ Fallou Mbacké merci à sa délégation qui a accompagné Abdou Diagne Abdou Diagne pour ñëw fi tey jàppale Serge Ndiourbel sëñ Fallou jërëjëf Abdou Diagne merci beaucoup mais merci également à madame Ndiaga Ndiaye Ajaratu Ndiaga Ndiaye ca Mbàkke Bawol elle a réussi tubaarkàlla par le président des amateurs bopp le président des amateurs du bien jàkko ah Mame Boye Diao andi 40 ans Tony Junior Ndiaga Ndiaye nag lay nuyu ñu ngi lay tege tay bi Serigne Saliou Mbacké suba mën a na lamb fii ci stade bi bu la kenn tardé ñoom ñëpp ñëw arbitre bi ngi waaj a sifflé troisième combat final drapeau chef de l'état par équipe Bandi 40 ans Junior Bandi 40 ans Fatick Junior Dakar jàpp na Bandi 40 ans Bandi 40 ans Tony Tony jël sol na Bandi 40 mbot na ko bañ na Bandi Tony daan na ko Tony na Bandi 40 Tony daan na ko Tony jël na drapeau chef de l'État Tony na Dakar jël na drapeau chef de l'État Tony Tony Tony sauvé na l'honneur Tony mi newoon yeewu na à génnee ci drapeau chef de l'État ici à Diourbel Tony ndeysaan Tony ngi noonu Tony noonu Tony noonu Tony noonu Tony ngi noonu Tony ngi noonu ndeysaan ma na Tony kàppar na hee rëkk na om ya ci suuf. mbokk yi ñu ngi ci 100 kilos yi Famara Sarr ak Mamadou Pouy Mamadou Pouy Dakar. Famara Sarr Fatick Modou Pouye ak Famara Sarr adu wisifle na catégorie 100 kilo baa ngi noonu dox ci diggante Famara Sarr ak Modou Pouye daw na jëli ko daan na daan na la ilaha ee eh, daan na ko daan mbokk yi drapeau chef de l'état bi kii di Dakar jël na mu des combat bi des diggante Serigne Ndiaye ak Doudou Sané waaye Serigne comme gagné na drapeau chef de l'état buggul bëriwaat ak Doudou Sané une troisième fois parce que gagné na ba noppi. mais dafa mel ni Serigne dafa blessé ci loxo gaañu boobu mu gaañu ci loxo moo waral mu ñëw ci cimekaay bi taxaw Doudou Sané ma jooy ndax nee na daa war a ñëw ñu bëre ñoom ñaar boo ma mënee ray ma su ma la mënee ray la loolu sport la équipe mel ni Fass ku ne xam nañ leen ci xarañte ci wàllu bu mel ni Moustapha Gueye ku mu indi kati indi xam nga ne lii mënul ñàkk ci sport bi moo tax gis nga ku mel ni Serigne Ndiaye de ma nga dem ci arbitre bi médecin bi Adama nañ dem. gis nga ren ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu Doudou Sané daw na Doudou Sané dem na. am na lu muy wax moom Doudou Sané nee na Serigne daa war ñëw bëre Serigne Ndiaye nanguwut a bëre lan lan moo ko gaañ ci loxo lan moo gaañ Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye mu ngi noonu Adama nee na loxo bi baaraam bi moo damm baaraam bi moo damm lañ wax na baaraam bi moo damm ndeysaan lan la wax nee na Serigne du bëre dañuy jox loxo dañuy jox victoire Doudou bi day yëkkati loxo Doudou Sané Adama ndeysaan Dakar jël na drapeau chef de l'État arbitre bi da yëkkati loxo Doudou Sané mbokk yi arbitre bi day yëkkati loxoom Doudou Sané am na ndam Doudou Sané am na ndam bañ na mer na ndeysaan nee na bu leen ma laal ndeysaan leen ma laal jël na drapeau chef de l'État ici à Diourbel 22e édition ndaysaan Dakar jël na ko jël na ko ndaysaan Dakar jël na ko les champions chef de ngi nii ñoo demoon xeexali Dakar jëli ndam li Père Moustapha Gueye mu ngi noonu lancé tur de Fass Serigne Ndiaye 2 mu ngi noonu ndeysaan xale yaa ngi noonu da ngay di gis ndeysaan ma nga noonu Let him stop the